salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di ziar di bokk ak yéen ñaan googu sëriñ bi di tëj léegi léegi di wax ko ci nekk yàlla yàlla faj sa mboolem aajo ak fépp foo mënta nekk lépp loo bëgg yàlla na ko yàlla defaral lu dul mooy yàlla ci barkin tam salaa salaam sëriñ bi ñu bàyyi la nga nuyoog jaam yi sëriñ Cheikh Omar Diop alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax bu baax di wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdaalin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yaa himmata shaykhi udina bi hadha almahdari waltahti fi bi naqri tahtidana bi safar mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ñaan ñaanal jàmm di ñaan Sénégal jàmm di leen wax ne incha allah ñu fas yéene waxtaane yéen ci pajam cosaan mm. li nga xam ne mooy xam-xam bi yàlla may Afrique mm. may ko doomi africain yi te nekk xam-xam bi nga xam ne mm. euh, addina bi yëpp bokk nañ découvrir nangu ne Afrique li fi yàlla def def ko fenn ci benn continent mm-hmm. Euh, rawatina wàllu santé nga xam ne occidentaux yi li ñuy mën-mën ak li ñuy xereñ-xereñ euh, buñ duggee ci wàllu santé rek da gis ne li gën a gën a mën mooy wàllu calmant waaye da ngay gis ne Afrique boo fi ñëwee mm. su dee ci wàllu spirituel la daanaka Afrique moo ko dese ci continent yëpp mm. ci wàllu spirituel ñoo ko dese su dee ci wàllu li nga xam ne mooy wàllu plante mm. Afrique lañuy ñuy jéggaani ci ay plante Euh, doomu Afrique yi euh, doomu Afrique yooyu nag war ci ñoom ñu mën a seet seet soppi seen doxalin changer seen doxalin ak seen taxawaay nga xam ne li ñu yàlla may ci wàllu santé ci wàllu gàncax tey dafa jot ñu xool yan anam lañ koy soppandee ak nuñ koy fexee ba nga xam ne occidentaux yi dinañ ñëw di faj faju ci Afrique au lieu africains yi jóg fii di dem di faju ci yeneen continent yi waaye yeneen continent yi di ñëw Afrique di fi fajoo ndax euh, lu mën a nekk la ndax lu ko prouvé bari na te euh, àddina bi ñu nekk tey àddina la boo xam ne euh, benn dëkk la li ñuy wax naan village village planétaire la te nga xam ne wàllu àddina léegi lëkkaloo gi am ku nekk yaa ngi wane sa li nga xam ne mooy sa sa activité yi nga nekk ak sa compétence mu jot nag ci ñun africain yi kenn ku ci nekk lam nga xam ne ci la spécialisé wu tam mën ci dara am ca expérience mu teg ko ci taabal ji fexe koo wane nit ñi xam ne doomi Afrique mën nañ lii mhm. loo tax nag euh, tey ñu toog ci jotaay tey fas yéene waxtaan ak yéen mhm. ci wàllu santé ci li nga xam ne mooy santé africain mhm. nga xam ne ci ressource naturelle yi nga xam ne yàlla may nañu ko fii ci Afrique lu mu ci wàllu plante yi te nga xam ne plante yi bëri na ci ay maladies incurables yoo xam ne ñun yàlla may nañu sens suñu expérience ñu mën dem ba am ci yenn yoo xam ne mën nañ koo faj faj boo xam ne faj bu bu légal la bu nit ñëpp mën a confirmer mën koo seede mhm. loolu expérience boobu ñu am nag nga xam ne tey am na ay nit ñoo xam ne ci wàllu médecine moderne bi lañ jàngee mhm. ba am ci ay lijaasa ñu nekk ay professeur ñu nekk ay docteur ñu nekk ay infirmier yàlla dogal ñu am ay patients yoo xam ne mhm. dañuy ñëw ci ñoom ci seen yenn maladies yi ñu def lu xam yëpp Euh, ñu gis ne su dañuy jógee ci ñoom bi ñëw ci ñun ñun ñu ciy am solution kon dañu ñun loolu loolu jàngee nañ ci rek ne ñun dimension bi nga xam ne moom la ñu yàlla jox dimension bu kawee la ndax lan moo ñu may sens boobu ñu am mooy wàllu spiritualité bi nga xam ne ci la ñuy yëngatu nga xam ne domaine la boo xam ne c'est un peu abstrait mm-hmm. nga xam ne c'est illogique nekkut loo xam ne lu logique la lu nit mën a à peu la mm-hmm. parce que lu dem ci wàllu machine moderne bi c'est un peu science nga xam ne science moo koy di définir. Mhm. moo koy décrire moo koy euh, jox ay forme moo koy jox ay orientation. Mhm. loolu yëpp nga xam ne ci wàllu machine moderne boobu noonu nga xam ne tey lépp lu ñuy def ci wàllu santé dafay aju ci ay règles. nga xam ne ay code lay doon wala ay règles lay nekk yoo xam ne ay limites lay doon seen wàllu ay analyse loo xam ne ay. Euh, euh, fibroscopie wala lu mel ni ay analyse wala lu mel ni ay scanner wala lu mel ni ay IRM wala yooyu. Mhm. ci yenn maladie yi il faut ñu jëfandikoo yenn appareils yi pour mën a xam maladie bi dal nit ki. Mhm. léegoo léeg nga gis kenn ku dem ci wàllu médecine moderne bi dem ñu defal ko lépp lu ñu xam ci wàllu ay appareil ñu jëfan xool ko duñ gis benn maladie ci waa yi mhm. wala li ko dal duñ ko mën a gis waaye nga gis ne bu ñu ñëwee ci suñu domaine ñun mhm. ci temps bu gàtt rek nga gis ñu am ci solution traité ko mu wér mu mu doxi soxlaam kon souvent damay faral di wax boo xam ne suñ ko organiser gën koo teg ci yoon gën koo améliorer mhm. euh, jën jënd jëndi li nga xam ne moo ci wàllu comédie mhm. yi nga xam ne moo tax nit ñi di ñuy sànni xeer wala di sànni xeer système bi comédie boobu ñu fexe ko ignorer dindi ko wane li nga xam ne moom mooy ci réalité ki nga xam ne am na feebar dem ci ñi mu yaakaar ñu tële ca te ñooñu euh, rang bi ñu leen jox rang bu gën a kawe ci mbooleem rang yi lañ leen jox nit ñëw ci moom mu tële ñu ñëw ci ki nga xam ne dañ ko ignorer mhm. dañ koo délaissé dañ koo teg à kooku noonu am ci solution kooku suñ ko oowte ne ko bokk nga moom war na fexe ba seet place ci place ci biir affaire bi mu teem toog ca place loolu moo tax nag ñun tout le temps dañuy xeex pour médecine traditionnelle bi ñu am nga xam ne ressource africaine la ñu fexe ko wane ba nit ñi xam ne Afrique am na ay valeur am Afrique am na ay doomam yoo xam ne mën nañ ko représenté partout dans le monde parce que man mii Cheikh Omar Diop am na ci ay maladies yu bëri yoo xam ne dama ci werante ak ay professeur ci wàllu Sénégal ak ci wàllu euh, euh, diaspora bi ay malaat yoo xam ne dañuy dem ci jaspora bi nekk fa xam nga machine médecine moderne ni mu développé ci wàllu niveau Europe ak Amérique nga dem ba mën a am ay patients yoo xam ne dañ leen di suivre bu ñu leen suivre tamit dañuy gis ne euh, li leen daal duñ ci am solution ñàkk moom ñu ci ñàkk am solution yàlla may la ci solution yow donc loolu dafay firi yow sa niveau am na fu mu toll sa niveau am na fu mu toll donc nag bu fekkee ne yàlla dogal na ci yow sa niveau am fu mu toll. Euh, dafay war ci yow nga nga nga gëm sa bopp nga gën a améliorer sa liggéey gën a jëmale sa liggéey ci kanam. parce que kenn du def kenn euh, ki muy doon lu dul nit ki moo koy def boppam donc nit ku nekk nag war yaay sànn yaay tànn ki ngay doon def ko sa bopp su fekkee ne da nga bëgg a nekk euh, un professeur yaa koy tànn yaa koy def sa bopp. su fekkee da nga bëgg a nekk quelqu'un koo xam ne da am limite dafay am fooy dalee am fooy yem yaa koy def sa bopp donc kon addina bi daal bunt yëpp ubbeeku na waaye seuls les nit ñi nga xam ne am nañ volonté ñooñu ñooy nekk ñi nga xam ne tout le temps da nga leen di gis ñuy am euh, kii loolu nag fu ah, lañ war a fu lañ war a tey waxtaanee mhm. ci wàllu maladie yi ñu leen di déglu bu baax di leen nuyu di leen ziara waaw loolu am na solo léegi lan mooy lan mooy def fi mu nekk jamono jii ba nit ñi am conscience ci pajum cosaan ak njëriñ li mu am parce que résultat yi kenn wéranteewul kenn nattamteewul léegi résultat pajum cosaan ñu naan ko médecine traditionnelle fii ci Sénégal fajkat yi ñu ngi fi am nan garab yu baax yi macha allah wax dëgg yàlla mooy yow di sa moroom di keneen ak keneen waaye luy waral lan mooy tax sénégalais yi ba tey itam ñoom ñu am conscience ci loolu ba tey ñu ñeme itam ñëw faju ndax euh, dama dama leen di layal tuuti képp ko ci wax rek wax ci benn lay doon maanaam soit dosage. soit mu lay wax waxi sûreté maanaam côté sécurité ci garab bi kon yooyu loolu ndax yow jël nga ci ay matukaay wala boog am ngeen kuréel goo xam ñu ci jël matukaay lu jëm ci loolu. waaw man li may njëkk a toll tontu mooy côté dosage bi nga wax. waaw kooku man am na ci benn kenn koo xam ne dafay euh, il est un peu ci côté santé mu ñëw attaqué ma ci côté boobu. waaw ma ne ko loolu arme la côté dosage c'est quelque chose boo xam ne arme la da arme de bataille boo xam ne beneen beneen beneen beneen côté bi. Mhm. ñoom ñoo ko jël pour def ko mu nekk entre ñun ak moom. médecine moderne nga bëgg a wax moderne bi ñoom ñoo ah. jël côté mbiri dosage teg ko suñu diggante ak ñoom. Mhm. pour mu nekk arme bu ñuy xeexee ak ñun. Mhm. mais ah euh, dosage ça n'existe plus dosage existé wul parce que comprimé des fois ñu jël ay euh, sirop di ko jox xale. da gis xale bi dañ koy dañ koy euh, peser. xool poids bi. nga gis ñu euh, euh, euh, la xool at xool poids bi jox ko sirop boo xam ne dañ ko def dañoo jël dosage bi hmm. mesurer ko. Hmm. mais des fois nga jox ko nit mu naan ko. Hmm. mais du ko supporter. nga gis yow yaa koy mujj bàyyi bu doon dosage bu ay bu bu réel kon kooku war war ci mën a am problème. des nga gis kenn nañu bindal ko garab mu jël garab bi di ko naan ba yàgg du ko mën a supporter day mujj au docteur wala mu dem ci docteur bi docteur bi na ko bàyyi garab bi naan garab bi. donc côté expérience moo gën a moo gën a logique côté dosage expérience bi mooy waral su ko nit ki naanee ba yàgg mu gis ne mu ngi koy commencé lor médecin bi moom moo koy wax na ko bàyyil garab bi nga naan garab bële mu remplacé ko ak beneen garab su fekkoon ne dosage dafa nekk lu exact lu réel kon bu boobaa da gis ne nit ku nit ku nu laaj sa at nga wax ko ñu xool sa pois ñu xam ko bu ñu la bindilee garab normalement sa organe daf ko war a mm-hmm. sa yaram daf ko war a attan sa lépp daf ko war a attan mais da ngay souvent da gis dañ lay jox garab mm-hmm. ñoom seen jëm bopp dañuy xam ne garab bii ñu la jox mm-hmm. ba garab bi baax na mais yow mënuloo ko supporter léegi li waral mënuloo ko supporter dafa a bëri ay cause loolu mooy tax dosage bi dootul mënati nekk lu ñu mën a téye foofu donc ñun am na expérience ci moo tax ñun des danañ jox nit garab mu naan ko du ko mën a supporter mu oo la téléphone ne la ah man kat sama garab bi ma ko naanee def na mi def na mi def na mi nii su dee da koy naan trois fois nga ne ko bàyyi ko bu ko naan trois fois naan ko deux fois pour au moins mu wàññi ndax mu mën ko supporter mhm. donc foofu expérience ngay la utiliser fa moo tax ñu soxla ci médecine traditionnelle bi quelqu'un koo xam ne il est expérimenté nga xam ne au moins am na expérience li muy def mhm. te it et puis il est ci li nga xam ne. moom lay wootee woo ci boppam. waa xam nga boo jëlee garab yi am na ci garab yoo xam ne c'est-à-dire ndaw du ko naan. par exemple xale mën na amee hémorroïde. xale mën na amee asthme. mën na amee leneen. est-ce que itam euh, jotul wala boo ko xawma ndax yow yaa ngi koy defam déet. est-ce que jot ñu xool garab yi nga xam ne ah, mën nañu wax ne zéro à cinq wala zéro à deux ans wala nga xam ne mi ngi xam ne jigéenu wérut la. parce que boo demee ci médecine moderne ay li yoon lu leen mën a waxal it seen notice dañuy bind médicament bi femme enceinte waru koo jël. xale waru koo jël est-ce que yéen tolloo leen foofu jamono ji weesu nañ ko bu yàgg weesu nga ko ci naka man tak ma dama koy def man des fois nit oo ma téléphone dama dama am tel maladie ngay jigéen dama lay laaj ndax yaa ngi sëy nga ne waaw ndax dangaa nekk en état wala nekkuloo en état nga ne non non nekkuma en état ma xam ne aw nekkuloo en état parce que dama lay laaj su fekkee ku ñëw ci man la dama lay laaj hmm. su fekkee da nga nekk en dama lay wax ne ku nekk en état ma la jox sama garab am na ci garab yoo xam ne mën nga ko naan au laa de boo amee 6 mois wala nga am 3 mois bu fekkee da nga nekk en état mm. mais bu dee da am début euh, début grossesse début grossesse man du ma la jox yenn yenn garab yi. loolu xanaa pour bañ garab yi yàq grossesse am na. waaw dafay am ci yenn médicament yi ci wàllu côté moderne. Mm. donc am na ci kenn koo xam ne sax mos naa ñëw ci man am problème am doom. Mm. ba ma koy defal traitement yaa dogal mu mu nekk en bu ba ma ko wax joxe sama garab ma ne ko bés boo nee bés boo toogee rek sa règle ñëwatul rek. automatiquement arrêté garab bi. mu ooma téléphone ne ma sama gisutuma sama. règle kooku garab pour lan xanaa pour ëmb la woon. pour ëmb la woon. ah d'accord léegi bi mu ko naanee mu ne ma gisuma sama règle ma ko ko. maam fii pour pour pour. bëgg am doom pour bëgg am doom. ko naanee ma ne ko mu mu jël. Hmm. gisatul règle la ma ne ko arrêté garab bi mu arrêté ko ma ne ko soo amee 15 jours nga dem jënd test grossesse bi nga xool ko mu jëm jënd test grossesse gis mu négatif ma ne ko continuer la bul daan garab bi bàyyi ko noonu ba beneen règle bi ñëwaat ñu xool mu xam ne dana confirmé wu beneen règle bi ñëw mu confirmé wane ne gis mu xool gisul règle am léegi mu dem ci gynéco bi gynécologue gynécologue bi mu demee si gynéco bi mu xool ko mu ne ko léegi nañ def écho ñu xool def écho gisuñu dara mu ne ko affaire bi dafa négatif xëy na sa règle yi moo poussé moom moo taxaw ñëwuloo ñëwul ma ne ko bu ma ne ko bul naan mu ne ko léegi dama lay jox euh, pour kii euh, garab pour mu déclencher règle yi ma ne ko bu ko naan bul naan mu oo ma téléphone wax ma ko ma ne ko bu ko naan mm. yaa ngi dégg donc boobu fekkoon ne tey jox na ko garab bi dafay hmm. dafay dafay dafay déclencher kii bi euh, euh, euh, grossesse bi. Hmm. mën na ko affecté léegi bi mu ko bi mu ko waxee loolu man bu ko naan ma ne ko am na si xale yoo xam ne. Hmm. fekk ñu ñetti weer appareil du leen gis. ça arrive mu ne ma ah ma ne ko waaw mu léegi nag mu dem troisième mois bi mu dem gynéco bi defal ko écho bi mu ko defalee écho automatique bi mu defee écho mu gis mu soog a gis xale bi. ci trois troisième mois bi am nañ expérience. fekk toog na ñetti weer gisul lu régal gisul régalam te gisul ëmb bi tamit. gisul ëmb tamit. Mhm. donc loolu dafa nekk loo xam ne. Mhm. Euh, soo amul expérience mënuloo mhm. ci mënuloo ko mënuloo ko mënuloo ci euh, def. donc ñi nga xam ne xale yi nga xam ne dañu am zéro à cinq ans. bu fekkee ne tey nit la koo xam ne dafa am yenn maladie yi man su ma lay jox garab bi sa yaay laa koy jox mu naan ko. yaa ngi dégg sa yaay laa koy jox mu naan ko nga nàmp ko man am na ñu bari yoo xam ne xale yu bari dama leen di faj mais seen yaay laay jox garab bi ñu naan ko ñu nàmp ko mm-hmm. suñ ko seen yaay joxee ñu nàmp ko après ni mu leen di fajee noonu la leen di fajee rek benn chose la même chose lay nekk mm-hmm. mais loolu du ñëpp c'est pas évident ñëpp am expérience bi noonu mm-hmm. donc loolu ñun am nañ technique yi nga xam ne noonu la ñuy fajee xale yi ndaw yi am nañ technique boo xam ne moom la ñuy fajee mag ñi ni tubaab bi defee ay ay ay ay calculam ñu it noonu lañ mën a defee suñu ay calcul. Mm. parce que àddina bi léegi dafa dafa développé. Mm. mënatuñu àddina bi tey dafa dépassé nit ki ne man maa man maa xam kee xamul. àddina mm. dafa dépassé loolu léegi. wala man maa yor lu baax di yorul lu baax loolu àddina dépassé na loolu léegi. moo tax man mënuma accepter. loolu li ma mën a daal mooy. certains yi nga xam ne yàlla do dogaloon ñu am yenn expérience yi di di di di engagé wu ci yenn yenn risques yi. loolu war nañ koo mën a euh, dénoncer wala ñu xool yan solution lañ ciy ut. pour mën a recadrer waat gars yi nga xam ne ñii ay débutant lañ ñii ay borom expérience lañ ñu séparé lañ comme ça système bi mën a dox parce que affaire bi intérêt Sénégal la rek hmm. d'une manière général muy médecine la hmm. médecine bi moom mooy développé Sénégal mooy am bénéfice mooy bénéficié wu hmm. mais bu fekkee ne dañuy wax ne diw moo baax diw baaxul bu boobaa perdant bi Sénégal rek mooy nekk le perdant ñit ñi am dofuñu OMS organisation mondiale de la santé def na euh, gëstu bu ñu demee gëstu def na xaw ma quatre-vingt xaw ma quatre-vingt-dix xaw ma quatre-vingt-cinq pour cent hmm. population Sénégal bu feebaree balaa ñuy dem ci médecine moderne la ñu njëkkee ci médecine traditionnelle hmm. kooku c'est pas évident depuis lañu ko euh, euh, reconnaître nañ médecine traditionnelle mais xëy na Sénégal politique bi moo baaxul ak état yi nga fi jaar yëpp ñoom hmm. ñoo respecté wul seen ay aada ak seen cosaan xëy na timin colonisation bi nga xam ne ñoom ñooñu loolu la ñu coloniser ñoo ñoo ñëw libéré woon ba tey ñu mën a jot suñu bopp hmm. loolu yëpp moom moo ci nekk ci biir mais enjeu bi dafa yaatu loolu moo tax ba léegi blocage am mais sénégalais yi nga xam ne ay en tant Sénégal en tant que ñoom ñi nga xam ne ñoom bu ñu feebaree ñoom ñooy sàkk ku leen faj hmm. ñoom xam nañ fi seen jàmm nekk te ñoom fay dem te waxuñ ko kenn nag hmm. waaw d'accord léegi ñu jël ba tey ci wàllum ci wàllum waxtaan di jëm ci wàllum sécurité ci garab yi parce que duñ ci génnee noonu am na njariñ wax ji nga wax waaye itam boo jëlee garab gu ci mel ni tey wàllum ndoxum siti mm-hmm. nga xam ne garab la guy ciblé mm-hmm. jàngoro ju làqu la mm-hmm. loolu côté traditionnel moo tax may wax pajum cosaan la amoon leen loo xam ne côté côté concret la loo mën a prouver la parce que beneen médecine bi nga xam ne muy médecine moderne muy tubaab bi muy hôpitaux yi ñoom la ñuy jël seen garab ñu diagnostiqué ko à travers des machines yéen nag li ngeen yor mooy doon nante la doom moo doon na ci maam maam doon ci maam ba ngeen egsi fii wala nga toog ak man mun lii ak lii boo ko boolee baax na ci lii est-ce que loolu c'est-à-dire da ngay da ngay da ngay ko ci nit mu dox wala boog wala boog nit ay ñëw naan ko dana baax na jox ma lii nga jox ko ko. déedéet test la wala lan la du mu fay demee noonu. xam nga loo xam ne da nga fekk ñu ne la lii lii lay jariñ. nga jox ko mu naan ko mu gis mu jariñ ko ko. Mm-hmm. loolu benn la ci waaye lu la jiitu la. Mm-hmm. da ngay fekk ñu ne la ratkat baax na ci euh, soj. Mhm. wala ngeeraan baax na ci tension. Mhm. masalan quoi exemple laa joxe. Mhm. nga jël ko am tension nga jox ko ngeeraan mu naan ko ne man sama tension bi tane na mu dem xool ñu xool ko ñu ne tension ba tane na. xam nga kooku noonu nekk amatul jot mu ngi mel ni moringa. moringa tey soo ko bëggee dugal dans les pharmacies soxlawul ngay dem di dem yóbbu ci machine yi dem da ngay dugg dans l' internet nga xool moringa am na ñu ko xool ba pare. da xool moringa dégg lan effet la am yan ay vertus lan mooy njariñam lan lay def lan mooy effet secondaire am lan mooy yëpp nga xool nga xam ko mm-hmm. automatiquement da nga koy mën a jël rek dugal mais nag su fekkee ne plante la boo xam ne mm-hmm. c'est un peu historique nga xam ne ñu bari du du réew yëpp ko am du ñëpp ko jëfandikoo mm-hmm. laa loolu dafay laaj ñu ko dans les laboratoires dans ñu xool ko buñ ko xoolee xam ne garab bi kat lii mooy ay njariñam lii mooy ay loram ñu mën a xam naka lañ koy joxee ni parce que garab boo gis muy njëriñ am na lor léegi nag yow yaay xam lor yi naka lay koy naka lañ koy moytu mhm. ak njariñ bi naka lañ koy eh, defee ndax looy naan fukki yoon ci bés mhm. bu yàggee njorom lor gi lu mu tuuti tuuti tuuti bu yàgg mu def effet ci yow mhm. moo tax ñu koy naan loolu nit ki benn yoon wala ñaari yoon loolu expérience la loolu amul benn différence avec le machine machine moderne benn benn yoon la benn système bi la mais wax ji li fi nekk mooy galgalante bi moo fi nekk mais leneen amul fi leneen nekk ci loo xam ne lu ñuy lu spécial la amu ci man samay garab yóbbu naa ko dans xool nañ ko xamal nañ ma ne carrément. mais est-ce que tam boobu nga wax maanaam yow yow nga faj ki nga xam ne tubaab bi mënu koo faj du du moom réussite am c'est-à-dire ki jógee benn hôpital muy Dantec feneen dem na bëgg naa faju hépatite parce que yaa ngi faj hépatite bëgg naa faju hépatite wala diabète mënuñ koo faj kooku yebal ko ci yow mu ñëw nga faj ko mu wér loolu ñoom du seen ndam yaakaaroon ni plutôt ko galgal boobu boobu nga wax am na ci boobu ci biir sax d'ailleurs waaw am na ci d'une part mais bariwul. bu dul yéen seen biir tradipraticien non entre nous amuñu problème. mais c' est notre problème c' est avec l' état avec euh, le l' autre système. parce que déjà suñu euh, légalisation bi nga xam ne ñu ngi koy sàkku ci état pour ñu légaliser marché traditionnel bi mu demee ba côté assemblée nationale gars yi dañuy jóg def ay marche pour wane la garde c' concret du nekkul loo xam ne c' est théorique théoriquement rek dañuy wax nii comme ça mais c' est des am lu leen jaral. pour Sénégal bañ a ci côté médecine moderne médecine traditionnelle dafa am lu leen jaral ba nga xam ne léegi dañuy daf leen jaral def ay marche daf leen jaral di crise daf leen jaral di rey seen bopp ba ba affaire bi dem nañ conseil des ministres gars yi jàllale ko ci côté état côté yëpp jàll na fa jàll léegi donc ba mu egg ci assemblée nationale ñu war ko voté gars yi bloqué ko pourquoi euh, euh, war nañ ko wax bu fekkee ne ay yaa mille personnes au moins am na kenn ku baax ñu voté ko ngir kenn ku baax kooku pour pour avantage Sénégal mais pourquoi ñu xañ ko ñëpp loolu laa dul d' accord man d' accord naa ñu ne diw bokkoo ci diw bokkoo ci diw bokkoo ci mais diw ci la bokk au hmm. moins affaire bi avancé. ngeen régulariser ko mais bu fekkee ne wax ne ñëpp kenn bokk ci loolu saa mais loolu war loolu loolu bi ah. c' est à dire yéen yéen a xamante seen biir xam ngeen ku fi nekkoon bëgg loolu beneen loolu exemple laa joxe voilà loolu yéen la war waaye warul état légalisation bi hmm. ñàkk ñàkk a légalisation lay wax ne waruñu koo ñàkk légaliser parce que au moins am na ci suñ biir ñu am ñu ñu légal. ñu crédible quoi ñu crédible ñooñu nañ ko def ndax ñoom. Hmm. après ñu xool ñi ci bokkul naka la ñuy seggee ak ñu koy organiser. Hmm. ba xam ne léegi ñi ci bokk nañ leen a xàmmee ci bokkul ñu mu leen xam entre nous xamante nañ. Hmm. ñun bu ñu bëggee loolu man bu ñu ko bu ñu ñu collaborer. su ngeen yoroon tey seen légalisation rek après yéen di ngeen mën a xam ñi fi bokk. ñu ci bokk ñu ci bokk dèjà on on l'a déjà nañ kii kii. goo xam ne Fatick la moo moo dajale mboolem tradipraticiens yi nekk ci Sénégal kàngaam yi nga xam ne ñoom lañ gën a reconnaître ci médecine traditionnelle mm. ñoom ñoo bokk ci benn benn kuréel gu ñu tuddee FETRAS mm. donc ñun xam nañ ñi ñi nga xam ne ñoom lañ ñoom ñoo ci nekk ak ñi nga xam ne nekkuñu ci mm. donc loolu moom moo tax ñun suñ liggéey bi ñuy liggéey liggéey la boo xam ne dafa war a am continuité waruñu warul ñëw ba ci ñun muy naax saay waaye war na ci bu ñëwee ba ci ñun mu gën a yaatu mm-hmm. mu gën a fës parce que ñun liñ ci defagum donc sénégalais yi dootuñ ko laajteeti médecine traditionnelle à travers Cheikh Omar Diop ak les les autres là am na ci ñoom ñoo xam ne seen liggéey rafet na ñun ñu mën yëpp ñu ngi koy def ci côté communication ci côté wane li gën a rafet ci côté élargir gën ko yaatal gën ko moderniser xam nga man dem naa ba tey samay garab ma def ko sur forme de thé ay thé la léegi ay tisane la léegi soo koy naan léegi ñu bu njëkk ba xam nga dañ doon wax ne insuffisance rénale yi gars yi di am poudre yi ñuy naan moom moo koy joxe mm-hmm. contraire parce que insuffisance rénale gunóor yi ganaar ñu bëri na ñu koy joxe bëri na luy joxe insuffisance rénale tubaab yaa ngi koy am te naan nañu garab yi wolof donc bëri na koy joxe mais waaye ba tey téewut pour dalal xelu patient yi nga def ko ay tisane ma jël samay di yokk sama parce que xel mu dal itam ci faju la bokk voilà nit ki balaa faju xel meewalam dal donc wala sax mu ñemee sax li muy garab bi muy naan mhm. donc moom moo tax ma jël ko def ko ay tee def ko pour nit ñi gën a seen xel gën a def parce que euh, dëkk kii bi euh, euh, tee yi tey yooyu kenn mënul wax dañ dañ ko eh, eh, eh, am na am na dosage tey hmm. da ngay ñëw rek mu jugee Chine wala mu jugee Japon wala mu jugee fu la neex. wala ay Lipton yooyu indi indi ko ñu koy ah. naan. mën nga ko tudd ay Lipton yooyu yëpp. ay yooyu xamuñ fu ñu koy defaree. xamuñ fu ñu koy defaree ah. dañuy jékki-jékki rek gis ko. ñu ah. ñu koy jox ñu koy naan donc te duñ ko ñaxtu duñ ko jàmbat. mais hmm. il suffit que mu nekk made in Sénégal rek. ñu critiqué ko parce que loolu mooy a Sénégal du développé. ànd naa ak yow ci loolu vraiment Sénégal li koy développé mooy doomi Sénégal yi góorgóorlu état ñoo fekk leen fañ nekk mu renforcer leen bu dee dafa am lu manqué. Hmm. ñu ne leen point bi manqué na ñu amélioré ko ñoom ñu taxaw ñu amélioré ko amélioration am ci. yéen ngeen nangu au moins ñu nangu ko au moins ñu am benn avancement mais yow da ngay gis da ngay góorgóorlu di góorgóorlu di góorgóorlu ba am fu mu egg ñu ñëw fekk la fa au lieu ñu encouragé la ñu ñëw écrasé la bi ngay gis ni semence état mënul jox ñëpp liggéey liggéey ñu koy joxe mooy ku nekk la nga xam nga créé ca dara daf ko yaatal ko ñeneen ñi ñëw euh, bokk ci. Mm-hmm. ku nekk bu jëlee fukki nit bu yàggee mu doon dara. Mm-hmm. mais yow boo góorgóorloo ba commencé def def création emploi mm-hmm. ñu fekk la fa euh, euh, kii la yàqal la. te buñ la yàqalee tamit dañ koy manifester diw maa ko daaneel diw ko lii diw ko la ndam la ndam la ci ñoom te fekk xamuñ la diw moomu nga daaneel bu yàggee dootoo gis koo daaneel dèjà mu ngi commencé répercuté mu commencé feeñ. kenn ñamootu a def entreprise kenn ñamootu a créer def création emploi dem na ba léegi sax nit ñi léegi seen société yi seen biir kër yi lañ koy def ku soxla ñu libéré la soxlaatuñu créer benn création mu ngi crise baa ngi gën a métti te bàyyi état maa ngi leen di interpellé ci côté boobu noonu am nañu bari léegi bëggatuñu ki def création emploi parce que dañ leen di sonal sonal boobu ñu leen di sonal loolu dafa nekk loo xam ne musiba la ci réew mi moo tax ñu bëri léegi seen ay entreprise benn nit lay nekk de yaa ngi dégg ñu def seen ay euh, vente en ligne di jaay seen ay affaire ci àddina bi. Hmm. duñ fay taxe duñ fay impôt duñ fay dara parce que dañ leen di sonal. léegi su ko defee nag benn nit boobu noonu mu loolu tey mu créé noonu ci système boobu du hmm. na ko teg ci biti nit ñëpp bokk ci ku nekk dugal ci sa loxo. ñu bokk ko ñu bokk ko waaye tey bu kenn génnee taxaw lu defal loolu rek. Hmm. nga gis gars yi ñoo song la. très bien loolu moom moo waral ñun ñu bëri ñu ci ñun ñu tayal. ñu tayal ci création emploi bi te ñun ñoo mën a dimbali état. kenn ku ci nekk ñii am nañ xam-xam ñii am nañ xaalis ñu bokk associé ñu fexe ñu bokk liggéey ñu ak ki am xaalis ki am xam-xam moo moom ki am xaalis moo koy dimbale mm-hmm. mais boo amee xa xam-xam te amoo ko am xaalis ku la mën a mm-hmm. xam-xam mën a génn ça sert à rien du la amal mm-hmm. tamit amuloo borom xam-xam boo mën a associé pour ngeen liggéey sa xaalis du développé développé te bëri na ay secteurs yoo xam ne tey mënoon nañ ci investir mën a liggéey ak nit ñi hmm. euh, jeunesse bi xam nga tey at bu nekk yaa yaa yaa plus de deux ou trois quatre mille jeunes yu jugee étude yu nekk jugee université di dugg ci euh, secteur bi ci secteur bi hmm. duñ am liggéey hmm. te chaque année la kañ la jëm si vingt à trente ans Sénégal fan la jëm te sa population Sénégal bi day gën a yokk jeunesse bi di gën a yokk te ak création emploi mu gën wàññeeku mën nañu wax ne euh, état war na mën a sax fekk nit ku créer sax créer société sax état jël xaalisam subventionné ko may ko pour dimbale ko accompagner ko pour mu taxaw donc loolu yëpp dañ koy xeex léegi donc man côté boobu wax suñu métier bi ñu am nii mu wàllu médecine traditionnelle bi am na lu bëri lu mu mën a def ndax am na attan parce que boo xoolee médecine moderne bi li mu yenu soo xoolee médecine traditionnelle bi tey bu ñu ko mayee doole dina mën a am dana mën a enu benn côté léegi nag yëpp nag defuñu ko te loolu yëpp mu ngi nekk cote mu ngi nekk perte pour Sénégal multinationales traditionnel mën na dem ba nga xam ne sax o euh, niveau du international mën nañ dem ba ay milliards dafa jógee di ñëw dugg Sénégal. ah yow rek xool li ngay envoyé ci say garab mu jógee fii ñëw Europe Sénégal dem Europe. ay taxes la ak ah, ay impôts yooyu yëpp. waaw yooyu ak ah. xaalis bi ñu may envoyé muy ñëw fii Sénégal. waaw ma koy jël donc yooyu yëpp bu ñu ko gënee yaatal dina nekk loo xam ne. Hmm. dina dimbale Sénégal. Hmm. donc Sénégal daal euh, grosso de moom mooy. ak marque déposé biy tukki sax. voilà Sénégal Sénégal la quoi loolu Sénégal moo ko moom. Hmm. moo tax Sénégal dafa nekk loo xam ne. Euh, intérêt bi pour ñëpp la nañ fexe sénégalais yi ñu leen di dimbale ci li nga xam ne moom moo nekk seen ay investissement nit ki bu amee volonté ba créer société dañ ko war a encourager dañ ko war a accompagner dimbale ko bañ koo ignorer bañ koo xeex surtout nag ñu mel ni ñun ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu nekk ay scientifique nga xam ne ñun yàlla may nañu ay scientifique lañ parce que euh, euh, science mu ngi nekk ci def ay découverte scientifique un scientifique mooy kenn ko xam ne day def ay découverte day génne ay bees di génnee dara nit ñi di ko jëfandikoo ñun ay scientifique lañ parce que man plante yi nga xam ne mën naa ngi ciy faj bari na ci yoo xam ne tey sama ay xam-xam man sama xam-xam am protégé naa ko xam nga kooku xam nga ni ñu naan propriétaire euh, intellectuel tey ay intellectuel yu bëri amuñu ko te man am naa ko kon xam nga man du ma dof buy taxawaalu du ma nit buy fo du ma nit buy taxawaalu di di di foyee sama euh, xam-xam loolu nag tey ku dem ba àgg ci niveau boobu ba mën a am xam-xam bu ñuy protéger kooku war nañ ko mën a as jàppale. Mm-hmm. Sénégalais foofu lañ leen war a di foofu lañ leen di xaar état Sénégal foofu lañ koy xaar ci mm-hmm. population bi nga xam ne moom mooy góorgóorlu. Mm-hmm. donc ñun dañoo nekk ay nit ñoo xam ne. dañuy góorgóorlu ci liggéey bi ñu nekk di ciy góorgóorlu. am na ay yoo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp tey bu ñu ci état tey interpellé woon mën nañu ko tegal lu leer ci kaw taabal ji. mi lay nekk. ci wàllu B lu jëm ci côté hémorroïde lu jëm côté faible sexuelle lu jëm ci côté asthme lu jëm ci côté ulcère lu jëm ci côté tension lu jëm ci côté diabète lu jëm ci côté euh, euh, euh, ma manque appétit sexuel te yooyu c'est des choses yoo xam ne c'est un peu délicat ci côté médecine ta médecine moderne gars yi mënuñu ko mënuñu ci dara te yàlla may nañu ci xam-xam yoo xam ne nañ ci ay plante yu leer léegi li ci jot a mën ñu dimbale ñu def ko li ciy des ñu accompagner ñu ñu mën koo àggali mm-hmm. donc foofu la foofu la foofu la foofu foofu lañ toll tey àddina bi ñu nekk tey hmm? àddina la boo xam ne ku nekk yaa ngi génnee li nga am di ko teg ci taabal ji hmm. Sénégal tey li ñu am ñu ngi koy nëbb européens yi wala américains yi li ñu am ñu ngi koy génnee ñu koy génne kon ñun war nañ góorgóorlu génnee li ñu am hmm. te fexe di góorgóorlu di wane li gën a baax ci li ñu am loolu moom laay wax ci li nga xam ne moom nga laaj sëriñ bi ban jàngoro moo la gën a tëx ci faj man benn jàngoro tawuma déet am na jàngoro joo xam ne leer na la yow mënoo ko faj wala pour nga faj il faut que mu jël lu mu bon am na jàngoro boo xam ne moom ku ma ko wax. Hmm. man dama lay rejeté. automatiquement waaw dama lay rejeté. muy ban ci. mooy euh, drépanocytose. drépano. waaw drépano moom mosuma fàttaliku fenn kenn ku ma ci faj waaw mosuma fàttaliku ku ma faj ci drépano mosuma ko fàttaliku. Hmm, hmm. moo tax ku ma oo téléphone dama lay wax ne mënuma ko faj.

waaw kooku moom mën naa ko faj moyen de 3 mois. moyen de 3 mois nga faj hépatite bi. sëriñ bi hépatite bi bëri Sénégal de. waaw parce que 80 pour cent mooy de B dafa transmission yi. waaw parce que dafa bëri li koy joxe deret yi dañ koy doonante am ñu bëri ñoo xam ne dañ koy doon ci seen ay am ñoo xam ne ci sàngara si lañ koy jëlee ñii ci cigarette lañ koy jëlee ñii ci rapport sexuel lañ koy jëlee ñii ci gerte gi lañ koy lañ koy jëlee dafa bëri hépatite dafa bëri fi ñu koy jëlee ñu ci wàllante bi am na si ñoo xam ne da am sax malaat bu am hépatite nga di ko toppatoo ba mujj wàll la te doo ko bàyyi xel ah. yooyu yëpp ñu bëri foofu la koy jëlee te duñ ko xam donc ma am na si tout récemment rek kenn ku ñu fii nii frère dafa amoon hépatite après daf ko mujj am ma ne ko moytu moytu mujj am bi indi woon malaat bi moom moom mujj am hépatite moom moom mujj am hépatite dafa boo eggee ci état cirrhose ba commencé def cancer rek automatiquement pour mu wàll dafa yomb. waaw wax dëgg ñaq yi oto yi. dem dikk yeeg nekk lañ koy mën a jëlee rampe escalier yi bunt yi buntu bureau yi nit mën na ko am ba mu nekk euh, ba mu active ba mu commencé def état cirrhose ba dugg ci cancer. te du xam ne moom la yor. waaw te mën na ko xam mais ñi koy ànd ak moom duñ xam ne mën na leen wàll ci état boobu moom mu toll. parce que hépatique moom comme commencé def ba état cirrhose force da nga ko xam parce que day affecté bi. danga ko digestion dootoo ko mënati am bu normal dootoo lekk mu rees normal dootoo nelaw nelaw bu normal su doo naanee ndox du digéré yooyu yëpp da ngay am da ngay am da ngay am coono boobu quoi hmm. loolu moo tax pour que ko am forcément ko xam mais bu dee début bi la bu am 6 mois wala chronique bi yooyu mën nga ko am mën nga ko am sax plus de 90 ans 100 ans doo ko xam hmm. mën nga dund ak hépatique ba dee sax doo ko xam mën na dem xam hmm. nga am hépatique mu am ko wér doo ko am na ñu koy am quoi am na ñoo xam ne seen ay anticorps day gaaw a det day gaaw suñ amee hépatique anticorps moom mooy gaaw a moom mooy ñëw éliminer hépatique bi mhm. sa selon li ngay lekk wala li ngay naan wala environnement bi nga nekk wala sa comme sa alimentation mën na la dimbale mhm. ba nga wér te doo rendre compte na sax yow amoon nga hépatique mën nga am hépatique mu am ko ba wér te doo ko xam d'accord li la koy mën a mooy nga dem def don de sang nga dem def ay analyse wala nga def analyse wala nga def dem def xool sa yaram yëpp ñu xool ne la amoon nga ko na mhm. des fois ñu bëri danañ la di dal quoi la nga tàggatoo ak jàmm ñi sëriñ bi waaw di leen gërëm di leen sant bu baax santé seen santé la parce que Sénégal lañ am lii lañ am ci comme luñ mën a joxe. Mhm. ci xam-xam ci wàllu dimbale jaam yàlla yi. Mhm. ci côté feebar yi ñuy faj yu bëri mooy wàllu hémorroïde diabète tension ulcère ah, wàllu infertilité féminin masculin. Mhm. wàllu trompe yu poussé ñu am problème sperme ñi nga xam ne ñu am varicocèle ñi nga am problème éjaculation précoce ñu am hémorroïde interne externe ñi nga xam ne ñu am diabète diabète type 1 ñi nga xam ne dañu am tension ñu am prostate mm. ñu am euh, ñooñu nga xam ne daal ñu am problème yëpp incha allah ku ci ñëw rek boo ñu waxee wooyee ci numéro téléphone boobu ba mu des drépanocytose <laughs> waaw ba mu des drépanocytose moom du ma ko faj mm. waaw moo xam AS la moo xam SS la bu mu ci doon du ko faj parce que euh, préparé gu ma ko jubloo gu ma ci gëstoo gu ma ci tamit nit da ngay xaw da ngay faral ci li nga xam ne moom nga nekk moom nga nekk mhm. waaw bu dul loolu moom yeneen liñ fiy dem yëpp yàlla defal nañu tutura fajal nañ ko ay plusieurs personnes yoo xam ne tey am nañ ay résultats ay résultats ak seen ay coordonnées ak seen ay analyses yëpp ñu ngi ak moom mhm. parce que man sama liggéey dama ko xaw dama ko organiser parce que damay sóoraal suba ëllëg bu ma ooyee ne ma Cheikh Omar loo fi def wala loo mhm. mën ma mën ko wane nit ñi gis ne man lii mën naa ko te mën naa ko prouver. maa réalisé lii. maa réalisé lii mm. donc moo tax sant a mos naa la gis la doon posé question naan la hépatite dégg naa nga ne nga ne ko waxuma la na indi kenn ko am hépatite. waaw ba ko. doo li ngay def wala ñemee ko doo ko wax. Mm-hmm. donc ñu ngi leen di gërëm bu di leen sant di ñaan yàlla tamit yàlla dafa ñu jàmm ci réew mi ak ci bitim réew mm-hmm. di leen wax na suñ coordonnées ak suñu adresse mu ngi nekk cité Aline Sow mm-hmm. euh, ci biir cité bi biir cité Aline Sow bi nekk boori Géejawaay ci golf bi mm-hmm. euh, boo ñëwee ci biir cité bi nga laajte jumaa ji boo duggee boo ñëwee ci jumaa ji numéro kër gi 652 la mm-hmm. villa 652 numéro téléphone bi mu ngi nekk 78 162 64 64 78 162 64 64 mooy numéro bi incha ngi leen di gërëm di leen sant Momar Sarr Kane Laye Basi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërë ngeen